jërë ngeen jëf mbokk internet Actubuzz TV jërë ngeen ñu amati mbégte contentement baax a baax ñu ngi amati mbégte baax ñëw seet ci nga xamante mooy 6000 problème ñu fas waxtaan ak moom tuuti ci li nga xamante ne mooy ci côté actualité dëkk bi ak xew-xew réew mi mais di wax 6000 tamit doomu yaay Wally Seck 6000 bu Faramareen ñu waxtaan tamit tuuti tey ci li nga xamante tournée bi wàll dem gis nañ ne démb ak tey am na ay jafe-jafe ya fa am nag mais loolu dañ ci ñëw ak simili waxtaan ak moom tamit ak euh, kàddu yi nga xamante ministre bi yëkkati na jëmale ko ci li nga xamante mooy ci axlu euh, làmb kese am ah, ci musique lépp la ministre bi wax mais ku ne tey génn nga si wax ci simili ñu ngi lay nuyu di la siyaare jërë ngeen jëf euh, maa leen nuyu di nuyu mbokk internet bi yëpp di nuyu sénégalais yi nuyu waa jàmm gën si kaam mbaaw di nuyu waa Sam-Sam di nuyu président Waly di nuyu gouvernement bi di nuyu monsieur le ministre Omaro di nuyu sénégalais yëpp di ñaan yàlla jàmm si réew mi di ñaan yàlla sama waajur bu góor yàlla ko yàlla yërëm taxaare ko àjjana euh, di koy ñaanal képp koo xamante ni ñàkk nga waajur euh, di baalu ak ak ñëpp di nuyu sama mbokk Gambien yi nag xam nga man Gambien laa din part di nuyu Gambien yëpp képp kii Gambien dama lay nuyu di nuyu sénégalais de diaspora ah di Modou Modou yi Fatou Fatou ay jàmbaar nañu ay gor nañu lépp lu ñu liggéey rek ñu ngi koy yónnee Sénégal pour njaboot gi bañ a tumuranke kon ñoo di gërëm di leen char di nuyu Sénégal yëpp abo mm-hmm. jërëjëf Simil ñu ngi noonu rek laay ñëw ak yow ci li nga xamante mooy ci waxtaan wi ak ñëw ak ak jamono ji li xamante ne xew na ci li xamante ne mooy ci axlu làmb keroog bu ministre bi génnee jël kàddu yi jëmale ko ci li nga làmb dinañ sorti baree ci am yi nga xamante ne tey mooy ñu bari ñi ñi nangu nañ ñi nanguwuñu abu jërëjëf jërëjëf si kàddu bi ma sawar trop nag di si ay leeral mm-hmm. euh, abu làmb jii dafa bëri ay warkat bien vrai que ne ay sénégalais ñoo fa nekk ay gor di tedd di yóbbu seen njaboot mais dafa ñëw dafa am ñoo xamante ne dañuy yàqu deru làmb xam nga ministre bi biram Souleye ba mu génnee wax su promoteur bu mag génnoon tontu rek su boobaa dinaa am nu may waxee quoi mais ñu si génn di wax ñëpp ay marko taal lañu le cas de Fadam Fadam ban important lam Sénégal Fadam ban njëriñ lam Sénégal Fadam mënut tam monter combat yaawu jaal ak buusita parce que yorul. ku mun na monte combat yaaw jàll mënoo leen fay da ngaa war a noppi ji nga ji nga ji nga ministre bi xam fa lay waxee mooy gouvernement Macky Sall da nga doon tuddee benn ministre drapeau mu ñëw andi fa pile de million millions jënd billet làmb yëpp fa lay waxee xam nga wax dafa laaj dégg-dégg mais ministre bi fa la waxee ji nga mbër yi certaines mbër ay warkal lañu demal seen écurie ay costume ñoo lay yor période cent mille francs ba cent millions amul kenn ku mës a gis coacham fu ko fu ko mbër di may cent mille mbër bu la coach ba la jëlee cent mille franc ba cent millions mbër yi mag yëpp amul kenn ku taxaw ne mës naa may mës naa may sama coach deux millions wala un million duñ ko def parce que mbër gorewul barki démb Ndiaye Macky Sall dina leen woo pale boo jëlee huit mois si ginnaaw jox leen suñu xaalis ñun ñun ñu di liggéey di tedd si entreprise yi di fay impôt si réew mi Macky Sall jël suñu xaalis jox leen yi loolu war ñu ko lekk. gorewuñu plateau télévision yi huit mois si ginnaaw soo waxee mbirum Sonko ñu këf sa micro mbër daf na ko fi takke taxaw na si plateau suñu père père père Bécaye Mbaye di tudd Sonko di développé Bécaye nangu micro am mais kaw Bécaye da ngay comprendre parce que doom ji patriote la mi Modou mbay mais dangay ngay souligner rek pour xamal leen làmb ji ñoom ñëpp dañoo contrôle gouvernement Sonko bi ak gouvernement jomaay bi. il sont tous corrompus boo génnee Tapha Mbeur boo génnee Niang bu Ndaw boo génnee Macha boo génnee Ama bale le res yëpp waaw ñoom sox la res yëpp dañoo contrôle nguur Sonko bi nguur jomaay bi parce que gëmuñu woon ni jomaay day falu moo tax àdduna yàlla doo nga fi nekk mais mbër yi ñoom seen bopp am ñu lu ñuy wax nañ noppi am ñu importance ci mi li naan làmb facteur de développement la loolu du dëgg demal stade abuñu nit ñi dañuy ñëw stade ay amateurs la ñëw parfois nga ñëw làmb joo xam ne carrément yéen presse bi sax da leen téye bu ñu waxee ne presse bi defal publi publication combat bi waaw ñaata yoon lañ téye presse ma fekkee ko te presse bi pourtant carrément ay Sénégal lañu dañuy liggéey di yóbbu seen njaboot bu ñu waxee toog muy dox jeex na yéen bokkoo leen si classe buur géwél yi classe fadam yi ñoo tax ñuy wax buur géwél daa mun a monter combat bu sit ak yaaw jàll daa mun a fay bu bu sit cent mille daa mën fay yaaw jàll cent mille ku yorul da noppi ñun promoteurs yi mag yi la ñu wax mosoo gis benn promoteur bu mag bu të bu tëgg combat am di ko tuddee kii yelwaan kii yelwaan wala daw ko saret ay Modou Modou lañ koy tuddee ay Kaawmaan ay ministre dañu wax ne dëgg waaye léegi nag ministre bi fu mu xee mooy juste mooy tuddee gouvernement bi drapeau di séntu ay millions ak jënd billet làmb loolu dafay jeex ministre mu ñu laa fay un million nga ñëw stade jënd billet làmb yëpp plus de dix million ah jëlaat 5 millions jox ko promoteur bi foofu la foofu lay waxee. léegi nag ñi jën di wax son des vauriens ay classe Fadam ay classe buur géwél man buur géwél gaan baax dama ko bàyyee yàgg na. dama ko suur man yàgg na dama xool communication barki démb Ndiaye la Gris Bordeaux ñëw si plateau mu koy jéem a humilier buur géwél dafa jàpp ni moom il est important te buur important buur jàngul day forcer rek ba pare communication baaxul. ku mel ni Gris Bordeaux un nga naan nga jéem a gën a jàng moo la gën a tedd. nga koy humilier kooku kii humilier ki nga xam ne carrément de sa mbokk la nekk si làmb ji nga koy humilier kooku boo génnee carrément di wax ak di saaga sénégalais yi bàyyi ñu la xel mais na xam ni nag rayon bu nekk si moom fukk nekk si ñun ñun suñu téléphone lañ yor di xeex ak télévision yi ba ba fal jomaay kon xam nga ni ñoo ko gën a pare à part Walf télévision yëpp dañ doon contre nguur Sonko bi ñun sénégalais yi ñun waa Pastef ñoo téye suñu téléphone. di xeex ak ñoom di xeex ak ñoom xeex ak ñoom ba yëkkati fi ki nga xam ne carrément mooy président saal Sall fi jomaay kon waa làmb ji bi ñu génnee di wax ñenn ñi saful kenn ay buur géwél ay fadam ñoo xamante ne mun ñoo monté combat 500000 ñun ci làmb la ñuy jëriñoo mais njariñu làmb ba pare fadam demal géej waay booy kenn nawloo ko ay macca ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay safara yeneen booy rek géej waay booy nawloo ñu ko parce que booy gëmuñu ko gëmuñu ko sax gëmuñu ko parce que comportement am la. mag boo nekkee mag da ngay da ngay am fulla ak fayda nañ dem liggéeyi dugg si bureau di martaat wóor ka nettali ka fen loolu dafay jeex jeex na fi tàkk. Eh. kàddu yi nga xamante ne moo am jamono ji si li nga xamante ne mooy ci ak lu làmb ah beneen bi ma ñëw a yow si mil ah, gis li nga xamante ne ni di booba mais fan yi dëkk bi coow li dafay bari. parce que boo xoolee semaine bi am amaat mooy kaale ki nga mooy Papa Ndoye ak gel boobu Amina bi nekk famille sénégalaise coow loolu tamit. waaw loolu warta ñëw euh, si pencum réseaux sociaux yooyu mënoon nañ ko arranger familialement dafa ay cas yoo xamante ne warul warul ñëw si ay réseaux sociaux ay sénégal di dégg ñi naan nax ñi ay jullit la ñu nga lu ma siy dénk mooy fii. problème boo gis da ngeen waxtaanee mënoon nañ ko waxtaanee ailleurs mais pas di woo ay site internet di ko wax di ko tas sénégalais di ko dégg ah di si jël ay exemple yoo xam ne carrément tey baaxul. comprendre nga loolu loolu kenn rafetlu ko loolu ñaaw la ñoom nañ toog ñu waxtaanee ko parce que nit koo gis am na mbokk fii ji nga nit koo fi laal wala nit koo fi gaañ nga gis ay mbokkam kon nit ku ne am am nga ay mbokk kon ñoom nañ toog waxtaanee ko familialement loolu dara Pape Ndoye boo xoolee li ko métti mooy dañ ne gel bi dafa sëy ci kaw ëmb actuellement loolu moo ko traumatisé. waaw loolu non non loolu xanaa gëmul yàlla loolu loolu loolu bu gëmee yàlla dëgg loolu garaawul parce que ni ku ne carrément ak dessin am moom na gëm ni mën naa am keneen ku bokkut ak moom. gëm-gëm boobu la war a am. ba pare carrément dafa ñaaw góor doon góor yàlla mais donte yaa ngi si dëgg sax nga taxaw si internet di wax soxna jigéen loo xamante loo loo ko dégg yuux loolu waru ko parce que yooyu amul sens. mën naa xool na xool leneen. xale yi duñ jeex na xool leneen waaye. dëgg la mm. dëgg la dëgg la en tant que tey simil tey ñu ngi ñëwaat tey ak beneen façon euh, ci li nga xamante ne mooy ci showbiz bi tey showbiz kenn dootul présenté mille def nga ci lu ne lu ne tamit fekk na la ci parce que euh, dugg nga ci prison lu ne na la ci li nga xamante ne mooy ci milieu bi nga xamante mooy tey mooy ci milieu showbiz mais que ñu gis euh, li nga xamante na tournée mais ñu gis ci bi. waa ñoom seen biir famille waal yi xale yi ci biir di xeex di xiiroog di ngaay ko ca parce ku ci mel ne Umaro mu jàppante ki nga mooy Adamo démb ak léegi boo xoolee image yi mu ngi viral dëkk bi ñëpp di dal seen kaw. abo gouvernement moo changé gouvernement président Wally daa changé te gouvernement bu bees bii dafa changé quoi Umaro moo koy doxal mooy premier ministre bi mooy doxal abo dañuy nuyu son excellence président Wally di la xamal ni si biir koor gi. Wally jël na plus de vingt millions CFA séddale ko ay xaritam ay xaritu yaayam ak këpp koo xam ne carrément tey bokk nga si Faramarin musique kon kooku jar naa gërëm lu ma mun si réew mi kenn mënu ko boole si du lox du tiit du raf du jooy Wally actuellement mu ngi tournée européen sénégalais yaa ngi toog fii ñii di waxtaan ñii di football yi ñii di seetaan football ñii di bëri ji mais ñu bu ñibbisee li muy gagné si Europe bi yëpp sañu ko lekk moom donc da kay séddale sénégalais yi mooy wàllu si hôpital yi wàllu si néewi doole yi mm. wàllu si ñeente yi wàllu si sénégalais bu nekk si jafe-jafe mm. wàllu si sénégalais ji nga dañuy toll foo xamante ne ay suba la tabaski gannaaw suba la korite mm-hmm. foo DG boo woo du la jël même numéro Wally mooy fonctionné moom dong ngay woo mu a la waaw loo bëgg kon kooku kenn war koo tëkk la ak benn artiste c'est le santé du peuple mu nekk nit ku baax abu ji nga fu ma jaar ak Wally mm. wax nga ko wax biir wax mooy dem naa ngir moom Wally ba ma juboo moom ba tey boo xoolee li ma lekk si ñàkkam su ëppul 3 millions jege na ko Wally barki démb Ndiaye la may terrain 15 sur 15 kunu xam na loolu barki démb Ndiaye ma may mais ma iPhone 15 barki démb Ndiaye bi ne suba la ko damaa woo ne foo nekk ma ne ko maa ngi gàll mu ne non maa lay boole Tafa yëkkati 250 mille ni ma jënd si xar bu ndaw korite kooku suma nit la. Wally damaa dimbali ji ko tax nga gën koo warta gën. foo ko fekk dee ko nuyu. waaw man Wally daa tax ma gën ñi ma a gën ci réew mi man Wally damaa soppi Wally dafa génne esprit banditisme mu nekkoon ci man roof ma pexe mooy da ngaa a nekk nit da ngaa a jaamu yàlla six mille da ngaa a am xaalis six mille da a yeewu six kenn war laa gën ci réew mi man Wally ma defar je suis de Wally Seck abo ku ma xamoon démb ak ku xam tey nga xam ni Wally ma lu bëree bëri kon kooku Wally Wally maanaam maanaam maanaam du artiste dong ah mais dafa nekk artiste boo xam ne carrément tey staff yi di si xuloo di si xeex mm. Wally boo ko jegee rek da maa leex lu garaaw nag abu xool ma dama xool samay vidéo démb ak six mille démb ak six mille tey nga xam ne booy bi am na lu mu def si man barki Serigne Touba Mbacke ba pare bëgg ma ba jeex tàkk barki alxuraani karim jàppale ma nag xam nga xam nga ku sauver vie vie doomi adama ko dafa jërë gërëm waaye dafa sauver sama vie man sama vie abu heure bi sànkoon na ma la laa xamoon toog braay jam toog affaire banditisme xalaat bu ñaaw mhm. mais abu tey sant abu tey lépp jeex na si man du ma toog ba xalaat xuluk doomi adama sax bay xeex moom tey booy bi damaa dimbali abu xool li ma hmm? defar na ma nee naa la tournée bii nga gis nii barki sëriñ Touba Mbacke bi ñibbisee këram day fees dell képp kii sénégalais dala siy jox nga xam ni booy bi missionnaire la bu ko neexoon bàyyi way waale fondement këram rek barki Serigne Touba Mbacke soo ko jaay woon tey mun naa génn neuf cité waale fondement këram presque ay six cent millions la. waxuma la kër gi la li dem si karo waxuma la karo kaas kër gi de waale ñetti karoom këram boo ko teggee mun nga jënd terrain si banlieue bi waale capot la de boo taxee fond pont foire rek seen këram building la yeewoo de kon nag kuy xeex ak moom maa ngi xëy xas war ngaa mën a xool foo jëm de <laughs> du n'importe de ba pare mu yor soxna su baax muy soxna Aydara mu yor soxna soo xamante ne wax dëgg yàlla yaayam soxna jaaga ñoo ngi koy ñu ngi koy ñu ngi ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko ko àjjana mais li nga boo amee su baax da lay yaay. waaw ji nga barki Demba Ndiaye si ginnaaw waale ba waale demee Màkka. dem na di seeti ñoom caat seek. Hmm? dem seeti ñi nga xam ne carrément ay wël ay wëllëre waale lañu. xoolal xoolal xoolal jël ñàkkam di ko si def ne waale nee na mu ñëw seet si la te peut-être sax mooy nañ bañ a yëgewu nga xam ni soxna su baax nii lay def. comprends nga kon tey waale maa ngi yaay. tey boo amee soxna su baax rek manqué woo yaay abu mm-hmm. waalee gën ci lu mun gën mënu ko du tiit du raf du lox barki alxuraan di karim image yi ku teg vingt millions di ko séddale abu boo jënee màggal Tuubaa Tabaski Korité Tamxarit gàmmu Tiwaawoon cinq événements yi mm-hmm. waale boo calculé lu ci def yëpp ëpp na cinq cent millions billaahi wallaahi wa taalaahi te lépp si sénégalais la jëm mm-hmm. ba pare ñu mu dimbalee bari mu nekk woykat boo xamante ne këpp koo xamante ne dama yaa ngi si suuf biis booy xeex ak moom nanga nga toog xalaat bu baax nekk may xeexal kalla la waale du nen de. Hmm? barki Serigne Touba Mbacke waaye yow dama bàyyi yow ku soppi simi problème ku ma changé yow ku kooku day <laughs> man kenn maa gën a dëgër bopp man booy fit booy maa la ëpp fit ëpp leen doole lu ma capable capable ñu ko te man waale dafa rocc ci loolu ma pexe hmm? abu kooku day nit waale dafa nekk abu ah, su ma demaatee bay jàngiwaat di continuer sama TTL sama transport logistique 5QP ginnaaw yàlla wàll ne xam na ni ban transport logistique laay def moom la moom laa jàng te moom laay liggéey mais ma demee bay jàngiwaat waaye tax may jàngiwaat te maa ngi nii jàngiwaat maa ngi defaat yeneen deux ans nii grâce a Waly kon xam nga ni moom ma safee non xam nga xam nga abu wax naa ko léegi si biir wax nee naa la ku tax nga gën koo war te gën foo ko fekk di ko nuyu. barke sëñ Baba abu booy bi damaa dimbali. a booy bi damaa taxaw booy bi booy bi damaa jàppale abul ma damaa ni beneen doomi aadama la te wallaahi képp ku ma xamoon démb xam nga ni six mille beneen doomi aadama la à cause de kan waale waale ma dimbali ma ñu waale dimbali si laa bokk ba pare yëkkati terrain ma ko ne ma tabaxal mais mais tey ñu bari dañ doon wax ne ku musaan xam si six mille bokk nga tey nag ñu joué ci carrière si Diop lu baree baree baree bari tey mille tekk jóge fa ne ci leneen ak yeneen lan la situation yi la wala waaw avant tout d'abord euh, avant may dugg si mbirum Sidi maa ngi nuyu PDG Matar Diop Subatel mu nekk ni ku baax desaan kooku daanaka sama papa la kooku ni ku baax la Matar Diop Subatel kooku kenn gënu mu nekk sama waay mu nekk ni ko mën a sonn si doomi aadama euh, Sidi carrière am su ma gisee booy ne booy nekk si ginnaaw di balbalu yëpp si ginnaaw ay ree damay jàpp soobis ba muy soobis metti dëgg ñun la woon six mille Bañas Mara Omaro Baye Sall ñun la Sidi carrière fu mu toll noonu du ay wax liggéey la ñun ñoo liggéey ba carrière Sidi toll foofu. du dëgg mais ànd boo gis day jeex Sidi dama dem kaso sama diggante wàll moo tax ma dem kaso ma dem kaso wu ma am naa droit bàyyi ko du moo tax ma bàyyi ko dama ko baax barki Serigne Touba Mbacke du ma déggul ay musique am ma seeraan télé ma ko gis dama koy zappé parce que loolu moom moo ko liggéey. parce que war maa mën a dem kaso xeexoo ko moom ba dem kaso ñëwul kaso seet si ma loolu dafa ñaaw. Mm-hmm. mais nag dama kay comprendre loolu c'est la vie. àdduna moo demee noonu. Mm-hmm. du dëgg peut-être am na ñu ñuy ñëw kaso di ma seet si moom mi ñëwul sax moo la ëpp yéene pour ma génn fa mais lu gën a rafet mooy mu ñëw comprendre nga loolu la quoi. Mm-hmm. mais maa ngi koy nuyu di ko ñaanal carrière am jàmm. E, nam carrière jàmm. waaw tournée waaw tournée si di moom di yàlla intéressé woo man jamono gi benn artiste donc moo ma intéresse moo ma ñor mooy son excellent président Wally the king of the ah mooy ku soppi six mille the king de la musique sénégalaise Wally ma ñor keneen ñoruma Wally sama taxaw ak moom su ma neexee du dem soirée am mais parce que lu mu soppi si mën a bëri jukko yi mu génnee si mën a bëri Wally damaa rof pexe Mourou Yatta Saay dem si yàlla si li muy wax roof pexe waaye damaa roof pexe pexe la ma roof. waaw xam nga xam nga xam nga xam nga waal damaa ànd moom même pas un an. Mhm. lu mu si man ëpp na six millions. ku yëkkati iPhone 15 may la iPhone 15 li muy jar 900000. 900000 nga dem soirée may la 1 million nga dem soirée may la 400000. nga xëy barki démb koor koor biir koor mu laal la suukar koor juróom fukki junni. Mm-hmm. nga xëy mujj nga xëy korité mu laal la juróom fukki junni. Mm-hmm. mu laal la terrain 15 sur 15 presque 3 millions quelque. Mm-hmm. kon waa li mu ne si man kon kooku doo ko jëndee kooku moom may sëfe a a kenn du moom si réew mi. dëgg la dëgg la civil jërëjëf Babacar waxtaan ak civil am na solo lool parce que boo xoolee moom fasul à 100 pour cent réseaux sociaux yi saa bu génn rek fulla ak fenn wax pare ci ne ci nga mooy ci joobam. ñaanal ni ko gisee ni bu intelligent la jeune bu am métier la bu jeune bu gëm boom la jeune buy liggéey. topp ci ginnaaw kenn yendu jul kër kenn naan jul fenn ataaya six mille boo ko gisul ci milieu showbiz mu ngi këram toog si ruxam ne ci liggéeyam parce que loolu nag mooy doomu aadama loolu mooy nit nit war a doxee. yow yow yow yow yow nguur jumaay bi ku mu yeewul doo yeewati. déedéet ku ne xam na ni Amadou Ba. ay centaine de la yoroon di ko campagne <laughs> xale yi encaissé ko votel jomaay loolu ku mu yeewul dara dara du la yee. lëkkaada Adamo. waaw Adamo suma xarit la mu nekk ni ku baax. est xam nga ba mu amee problème ak waal yi moo toog mois liggéeyu ma bi ñu bi ñu waxantee dëgg rek sekk weer ma doon dugal cent mille wala soixante dix mille. Hmm? Adamo waaw. non du non loolu wax naa ko si télévision wax naa ko émission bu ne. waaw non sama nit la. waaw waaw mais gouvernement bi dañ koy changé. te Omaro mooy premier ministre bi. <laughs> na waxtaan ak Omaro rek. te barki Serigne Touba Mbacke ku waali ba torox nga si showbiz showbiz ak musique Sénégal waali mooy directeur bi moo yor direction bi barki Serigne Touba Mbacke xam nga xam nga xam nga waali ah ñu koy tëkkaleeg nit ñi ñëpp dañ koo xamul xam ko mel ni man xam naa ko am na fu ma jaar ak moom. Mm-hmm. ma bàyyi ko dem ànd ak Sidi Diop. Mm-hmm. jóge fa encore jàppante ak moom encore dem kaso ñëwaat ma tournoon encore ànd ak moom. Mm-hmm. foofu yàlla may dimbali. dëgg la. yàlla moom booleeg moom pour mu dimbali ma. te Wally moom mooy dimbali. man Wally li ma defar man ci àdduna barki Serigne Touba Mbacke ñu may kër gu pare sax ak ñi ànd ak Wally vingt ans li ma Wally defaral defaral leen ko. man waali sama bopp bi la tourné changé ko mhm. rof ma beneen bopp waali sama vie maanaam sama vie la sauvé kon kooku ma leen nit se kooku savant la kenn warta xuloog moom xolo ñu xuloog waali yëpp dañoo dof jamono gi ay amel ciu seen xel yi seen bopp bi départ nañu <laughs> waali ñu xuloog ñoom ku xuloog waali ñëpp dañoo dof yow ku mel waali gi xuloog bo koo xamante ne sécurité dara waxtaan ak yow ne wax la loo bëgg ngax loo bëgg mu defaral la ko mu conseil la teg la si axe kooku luy xuloog moom lan ngay xuloog waal yi man dama doon xëy jël sama yi waal yi waal yi booy naa na nii la waal dafa réew. amul respect. bu ñu dajee waal yi seeg laa sooy waal yi bind leen seeg. <laughs> loolu <laughs> leen seeg ñoom ah te su ma defee vidéo ñu encouragé ma. dafa reew booy bi amul respect waal moom moomul réew mi. 6 mi li ngay def noonu la. waal yi day ko attaqué te ku dajee waal yi circulation yi nekkoon ngir yàlla taxawal. soo taxee wax soxla mu mën la sec léegi ñu nekkoon ay dof. loolu jeex na. laa ilaaha illallaah waa waale gën a gaaw si réew mi barki Serigne Touba Mbacke ku fee ku feebar boo ko xoolee jug ku nekk say jafe-jafe boo ko nuyoo tedd wali maanaam mbirum bu maanaam mbirum yàlla suñu borom du mbirum musique. Ibrahima nag xoolal wali du mbirum musique il faut nit ne wali ah du mbirum musique. moom mooy Ibrahima sax wali muy képp comme problème àdduna boo ko gisee texe yàlla ko def si moom du nit. man Wally bu ma ko gisee commencé fréquenté ak moom la ma yàlla dimbali soppi ma changé ma teg ma si bon voie te damaa war a am tapot force bu yàlla jëlu bakkan bi damay am nga xam ni nga xam ni président Wally du nit tournée européen bi yëpp millions yi mi am yëpp dafay séddale sénégalais yi bientôt ñu ne tabaski ay 300 xar day jënd di ko séddale ah, ah ay kilifa tëdd si réew mi mm-hmm. ah ah mu ne ni jëndal ordonnance te kenn yëgul di fat fi ay dikkoon ay dikkoon la Wally di faj te kenn yëgul di jël ñàkkam di ko dimbali ay sénégalais waaye day dimbali ba dimbali ay gambien kooku yow war nga ko tëkkalee kenn ad si àdduna kooku bu ko tëkkalee kenn du moroom kenn képp ku tëdd ñi tàppale ne la bu subaa nga mel lay waal yi doo nalaw kenn du moom si réew mi barki Serigne Touba Mbacke du moroom kenn te kenn du moom si réew mi. kon kon kon réew mi gars yi da ko war a respecté président Waly ku dimbali 6000 ku tax simil gën ñëpp ku tax sénégalais yi gën a bëgg man sénégalais da maa gën a bëgg à cause de yi da ko war a respecté. da nga kaa war a jox cër Wally du moroom kenn c'est le king of de la musique sénégalaise Adamo nag na négocier xam ni gouvernement bi ah. danga koo tas waaw gouvernement bi da koo tas da nga koy defaraat dañoo fal gars yi bees ah. léegi nag loolu bu mu tax mu coow ba Omaro di ko dóor mm-hmm. te Omaro ku wax ku yàlla rek te yàlla tax Omaro ba mu ñëwee dafa yokk mais wàññiwul artiste bu ne boo sañoon am ko mel ni Omaro waaw dama ne la parce que dafa mun li muy def mais problème may Wally mooy bunt kër goo xamante ne boo fa toogee doon beneen bunt kër Wally nag boobu boo ko naan di ko jërëjëf kontaan nañ ci waaw di xaar le retour incha allah bu encore balaa ngeen dem Wally le 27 mooy anniversaire am 6 mais am nañ yaakaar nag avant le 27 avril mhm. Euh, si diggante bi euh, non xam nañ ni ñaga euh, euro dinañ may ñaari vogue parce que sénégalais na moon nañu Wally Wally Seck biir vogue almadina wax dëgg yàlla ñii ni ñaan ndimbal lépp ak ñii ni mhm. ne kon nga ñëw ah, nga soxla nañ ko jërëjëf Abdou Sefa